ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha. mi fi Serigne mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba. di mu yàgg fi di yàgg fi lool te ànd ak wér. mu di leen fas yéenee jottali kaddu yu bàyyikoo ci moom. muy kaddu yu nuyu. dalal leen jàmm ci dëkk bi. leen jàmm ci dëkk bi. di yóbbante am nuyoo. ci seen kilifa yi leen fi yabal. ci di sëriñ bay Thiam. di Serigne Mbaye Thiam. kilifaam gi nga xam ne moo ko jox ndigal. ak kilifaam gi nga xam ne moo ko jox ndigal. mi président Macky Sall. mi président de la république Macky Sall. ci turu sëriñ bi. dellu di leen nuyu ci turu sëriñ bi. di nuyu yéen ñi nga xam yéen la yabal di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen la yabal ci jataay bi. tàmbalee ko ci ci Sidibé. moom mi jiite wàllu moom mi nga xam ne moo jiite wàllu inondation. di ci teg Laasana Diagne Sakho. di ci teg Laasana Diagne Sakho. ñi nga xam ne wàllu assainissement bi moo ko yor. ñi nga xam ne moo yor wàllu assainissement. di nuyu seeni ndaw mi nga xam moo yor wàllu ndox mi. di nuyu itam seeni ndaw mi yor wàllu ndox mi. kon muy euh, fànn gu am solo ci dëkk bi. muy fànn gu am solo ci dëkk bi. rawatina ci waxtu wi. rawatina ci waxtu wi. di nuyu Serigne Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne mooy jiite commune bi. di nuyu Serigne Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne moo jiite commune bi. ca dalal leen fi. ca dalal leen fi. ci turu Serigne bi ci turu Serigne bi. député Abdoul Ahad Seck. di nuyu itam député Abdoul Ahad Seck. ak mboolem ñi fi teew ñëpp. ak mboolem ñi fi teew ñëpp. Euh, di euh, dégg nañ kàddu yi bu baax a baax. dégg nañ kàddu yi bu baax a baax. ndax euh, yàlla dafa def. ndax yàlla dafa def. bi màggal gi jàllee. bi màggal gi jàllee. ba weeru gàmm gi jeex. ba weeru gàmm gi jeex. ci rek gàmm. ci rek ci la ma ci ko sëriñ bi yónni woon. ci président. muy lu ci wàllum ndox mi. muy lu jëm ci wàllum ndox mi. ak wàllu assainissement bi. ak wàllu assainissement bi. mu xamal ma ne ndox mi. mu xamal ko ne ko ndox mi. budul woon ak université bi. budul woon ak bi. mooy sama yitte yi jiitu. mooy sama yitte yi jiitu. kon damay woo taalibe Serigne Touba yëpp. kon damay woo taalibe Serigne Touba yëpp. ànd koog ñoom. ànd kook ñoom. ñu def ko ba dëkk bi. ñu def ko ba dëkk bi. am ndox mu neex. am ndox mu neex. te dootu manqué dootu manqué. waaye nag comme léeg-léeg yitte ju rëy. waaye léegi comme léeg-léeg ay yitte yitte ju rëy. yoo xam ne neexut boole. yoo xam ne neexut a boole. moo tax xamalal xamalal ma ko. moo tax xamalal ma ko ne. yitteel na ma. yitteel na ma. te màggal gii ñu jëm. ca màggal gii ñu jëm. gii weesu ndox mi dafa manqué woon. gii weesu ndox mi dafa manqué woon. waxoon na ne fa na ci yéene jëf. ca waxoon na ne fa yéene cee jëf. wàllug assainissement bi itam. wàllug assainissement bi it. daaw daaw. màggal gi dugg si. bi màggal gi di dugg si. ci CRD waxoon na ko. ci CRD waxoon na ko. ne leen màggal yi ñu jëm yëpp. ne leen màggal yi ñu jëm yëpp. ci biir ndox lay nekk. ci biirum ndox lay doon. kon loolu daanaka mooy li agsi ren. kon mooy daanaka li nga xam ne moo agsi ren. moom itam mu mu digg ci. moom itam mu bëgg ci. mu digg ci. mu diggee ci. wax wax ma lan ca nar. wax ko la nga xam ne moom la ci nar. mooy li siini leeral léegi. mooy li nga xam ne moom la siini leeral léegi. mooy forage yi nga xam ne yu bees la. mooy forage yu bees yi. surtout quartier yooyu nga xam ne. surtout quartier yooyu nga xam ne. dafa manqué woon ndox. dafa manqué woon ndox. mooy bari na sax ci quartier yëpp la daanaka. nee na bari na sax ci quartier yëpp daanaka la. waaye dafa rawante. waaye dañoo rawante. ndax fu mel ne Darou Manane googu ñu tudd. fu mel ne Darou Manane googu ñu tudd. waxoon naa leen ko daaw. waxoon na leen ko daaw. mooy war a jiitu fi mu ne mooy fi nga xam ne moo war a jiitu fi ne. ndax li tàmbalee Darou Manane. ndax li nga xam ne moo tàmbalee Darou Manane. jaar xayra. jaar xayra. dem ba da ba ba Madiana. dem ba Madiana. foofu mooy fi mooy fi nga xam ne ñoo gën a sonn ci ndox. donte quartier yu bari donte nag quartier yëpp la. ba ci seen quartier yi sax yëpp ci la bokk. fii ñu dëkke màggal gi daaw am nañ lu mat fukki fan amuñu ndox. màggal gi daaw am nañ lu mat fukki fan ci amuñu ndox. waaye nag fee moom moo gën a métti. waaye côté bee mu wax nag moo gën a métti. Euh, kon mooy lii ngeen mooy kon nag lii ngeen tàmbali. mu teg cee mu teg cee ne. damaa bëgg def benn euh, étude bu mag. damaa bëgg a def benn étude bu mag. pour réseau bi nga xam daa am jafe li nga xam ne mooy réseau bi nga xam dafee ne ci amee jafe-jafe. ndax gis nañ ne. ndax gis nañ ne. forage yi. nu nu yokk-yokk forage yi. te te yokk forage yi. duñ yokk forage yi. te réseau bi baaxut. te réseau bi nag baaxut. du am njëriñ. du te sëriñ bi itam. te sëriñ bi itam. ku sañoon kuy màggal si ku ne. ku sañoon kuy màggal si ku ne. doo fi dikk ak tumuranke. doo fi dikk ak tumuranke. waaye màggal si ba noppi. waaye màggal si ba noppi. doo am loo lekk. doo am loo lekk. ndax eh, ndox mi mooy togg. ndax ndox mi moom mooy togg. doo am loo naan. doo am loo naan. boo bëggee jàpp. boo bëggee jàpp. wala nga bëgg sangu it mu wala nga bëggee sangu it mu jafe la. loolu moom diis na ci sëriñ bi. loolu moom dafa diis ci sëriñ bi. moo tax étude bi nga wax. moo tax étude bi nga wax. loolu mooy liy régler lépp. loolu mooy li nga xam ne mooy régler lépp. baax. ba mu baax. kon nag ñu ngi leen ci comme agsi na foofu. comme nag agsi na foofu. sori na sori na. kon ñu koy xaar ba mu ak jàmm. kon ñu ngi koy xaar ba mu àgg ak jàmm. Euh, wàllug assainissement bi itam. wàllug assainissement bi itam. moo po waxoon ne dana ci def ñaar fukki milliards ren. waxoon na dana ci def ñaar fukki milliards. ren ren. ba yaakaar naa jàlloon na assemblée bu ma juumut. boobu yaakaar na ne bu ma juumut jàlloon na. bu juumut jàlloon na assemblée. Euh, ci biir loolu nag. bi nawet bi sësaatee nii. bi nawet bi sësaatee nii. sëriñ bi yónni ma ci moom. sëriñ bi dellu ko yónni ci moom. ma fàttali ko yooyu. mu fàttaliwaat ko yooyu. ak yeneen yi ñu war a def ci dëkk bi. yeneen yi ñu war a def ci dëkk bi. Euh, ci li li ci concerne ministère bi nag. li ci concerne ministère bi nag. président joxaat ko ndigal laaj ko fu ñu toll. jox président joxaat ko ndigal laaj ko fu ñu toll. mu leeral lii. mu leeral lii. ci la ko jox ndigal. ci la ko joxe ndigal. nekkoon nañ dem Touba vérifier. nekkoon nañ dem Touba vérifier. ak xool yi gën a jàmp. ak xool yi nga xam ne ñoo gën a jàmp. kon mooy li ko mooy lii nga xam ne moom ni la ko saaxu waxee léegi. xamal na ma ne. ministre bi it xamal na ko ne. ñaar fukki milliards yi ñu programme ñaar fukki milliards yi ñu programme woon. bàyyiwuñ ko. bàyyiwuñ ko. waaye xam ngeen ni réew mi deme waaye xam ngeen ni réew mi demee. li xew ci àdduna ak li xew ci àdduna si. moo tax mu moo tax mu am tardement. programme bi benn. ci programme bi di benn. boo xam ne dem na sax yaakaar naa ba jege téeméer milliard lépp. boo loo xam ne yaakaar na ne dem na ba jege téeméeri milliard. waaye ñaar fukki milliards mooy li ci a jàmp. waaye ñaar fukki milliards yi mooy li nga xam ne moo gën a jàmp. mu nekk benn benn benn programme. mu nekk benn programme. kon loolu. kon loolu. ñu ngi koy rafet lu baax. ñu ngi koy rafetlu bu baax. di soññ it gaañu saako li mu lim léegi. di soññ it gaañu saako lii nga xam ne lim na ko léegi. ci assainissement OIC bi. ci assainissement OIC bi. ndax yàlla def na. ndax yàlla def na. bi ma ko njëkkee xalaat. bi nga xam ne njëkk naa koo xalaat. boobu Cheikh Sidi Moukhtar moo fi nekk. boobu Cheikh Sidi Moukhtar moo fi nekk. biñ ci waxtaanee. ñu ci waxtaanee. boobu ministre Mansour fay moo yor loolu. boobu ministère ministre Mansour Faye moo yor loolu. ñu wax ci. ñu wax ci. ndax booba la doon illa ji dëgg-dëgg. ndax booba la doonoon illa ji dëgg-dëgg. mooy jumaa ji nga xam ne. mooy jumaa ji nga xam ne. amut ay wanak. amut ay wanak. te ma yëg ci waa kër Sëriñ Tuubaa te mu yëg ci wàkk sëñ Touba. bëgguñu woon ay foos ne ci biir jumaa ji. bëgguñu woon ay foos ne ci biir jumaa eh, ci la architecte yi bi ñu xoolee. architecte yi bi ñu xoolee. ba xool ne faaw foos yi eh, fu jege yomb fi. ba ñu xoolee ne faaw foo xam ne jege na pour def foos yomb yomb fi. ci la ñu xalaatal loolu. ci la ñu xalaatal loolu. ci laa jëloon dossier bi. ci laa jëloon dossier bi. waxtaan waxtaan ci ak Mansour Faye. waxtaan ci ak Mansour Faye. mu wax ma ne allah. mu wax ma ne incha allah. sama projet bopp. sama projet bopp. danaa ci waxtaan ak président. danaa ci waxtaan ak président. dinaa ko topp ba mu sotti. ba mu noppi dinaa ko topp ba mu noppi. ba mu sotti ba mu sotti. kon nag yàlla def na. kon nag yàlla def na. agsi na fii agsi na fii. kon fekke wu ko. kon fekke wu ko. waaye ñu ngi ko ci gërëm bu baax waaye ñu ngi ko ci gërëm bu baax. sonn na ci lool sonnoon na ci lool. bañ bañ bañ bañ signé ko ba liggéey bi tàmbali. bañ signé ko ba liggéey bi tàmbali. waaye it eh, saaxo danaa am tuuti lu ma la fàttali. waaye saaxo danaa am tuuti lu ma la fàttali. mooy Touba. mooy Touba. dëkkub Serigne Touba la. dëkkub Serigne Touba la. lu ngeen fiy def sëriñ bi ngeen koy defal. lu ngeen fiy def sëriñ bi rek ngeen koy defal. waaye sëriñ bi leen koy defal itam. waaye sëriñ bi li ngeen koy defal it. taalib yi koy jëriñoo. taalib yi ñoo koy jëriñoo. ndax lu mu ci doon rek sëriñ koy jëriñ sëriñ bi ci gën a la. ndax lu mu ci mën a doon rek sëriñ bi ci gën a néew la. ndax bu ñuy wax bu ñuy ndax bu ñuy wax dëkk bi. taalib yi tax ñuy wax. taalib ñoo tax. kon liñ leen di defal. kon ñu leen di defal. muy àgg ci ñoom. muy àgg ci ñoom. waaye itam. waaye itam. am na ci loo xam ne. am na ci loo xam ne. mat naa gën a bàyyi xel. mat naa gën a bàyyi xel. ndax kuy booy jëflanteeg nit. ndax booy jëflanteeg nit. ak wegeel da caa baax. ak wegeel da caa baax. ndax mënoo ñëw cib dëkk. ndax mënoo ñëw cib dëkk. ak projet bu toll noonu. def fa projet bu toll noonu. te ñee dëkk ci dëkk ba xamuñu sax projet bi nu mu demee. ba ca nga xam ne ña dëkk ci dëkk bi sax xamuñu projet ba nu mu demee. man mii di maa ko bi nga xam ne ko war a leeral. sëriñ nga xam ne maa ko war a leeral. yéen a ko a ko ci tane. yéen a ko ci tane. asama population bi ci dëkk bi. asama population bi ci dëkk bi. kon loolu président bi ngeen di jëfal. ndax loolu kon dimbalewut président bi ngeen di jëfal. ndax nit boo koy dimbale. ndax nit boo koy dimbale. la nga jëfal a dafa war a leer ci ña koy jëfal. ñi ne ci kanam. ndax ñun ñi nekk ci kanam. leerut ci ñun bay leer ci taalibe yi ne ci dëkk bi. ci ñun bay leer ci taalibe yi ne ci dëkk bi. dëkk bi itam. ca dëkk bi itam. dafa am nu mu bindoo. dafa am nu mu bindoo. fépp fépp féppay farata. féppay farata. waaye priorité bi. waaye priorité bi mooy tàmbale ci jumaa ji di wër. mooy tàmbale ci jumaa ji di wër. yëpp tolloo. kàlli quartier yëpp tolloo. ñëpp yam ci. ñëpp yam waaye fi mu toll nii. fi mu boo jokkatee fii. jokkat fee. jokkat fee. te ñi ngay defal xamuñ lu mu. te ñi ngay defal li ñu leen defal. sax ak defar. ngaa andi ak defar. fekk li nga def ak yàq la ay yoon. boo gisee ma leeral ko. boo gisee ma leeral ci lu ëpp ñetti yoon. ci lu ba ci ëpput fukki fan. ba ci ëpput fukki fan. mu ne ma dinaa la woowaat tontuwaatuma. mu kon maa ngi a ci yem. kon maa ngi a ci yem. daa bëri daa bëri yu te loolu euh, dugg ak te loolu du wéegal. du dimbale seen kilifa yi. dimbale seen kilifa yi ngeen di liggéeyal. ndax kilifa boo koy jëfal. ndax kilifa boo koy jëfal. bu ngeen agsi wut ci man itam. bu ci man jaar ci Abdou Ka. jaar ci Abdou Lahad Ka. wala ngeen jaar ci député yi. wala ngeen jaar ci député yi war a xam-xam. wala ña war a xam. loolu daal mën naa bàyyi xel bu ëllëgee. loolu daal war naa mën naa xel bu ëllëgee. ci liggéey ci liggéey. njàmbat li bëri na ci. njàmbat li bëri na ci. projet yu mel ci projet yi mel noonu yu bëri bëri. ñun duñ toog ci rajo bi di wax. ñun nag duñ toog ci rajo bi di wax. ndax euh, kilifa. ndax kilifa. bu fekkee boo waxee moom mu dégg la. boo waxee moom mu dégg la. doo toog ci rajo di ko weer. doo toog ci rajo di ko weer. ndax loolu. ndax loolu. am nañu ko moomut. am nañu ko moomut. boo gisee ma àggee ko nii itam. boo gisee it ma àggee ko nii. mooy moom mii. mooy jàmm képp laa seq ak moom. jàmm rek laa seq ak moom. sama xarita. sama xarita. waaye du ma ànd ak nit ci lu dëgg. waaye du ma ak nit ci lu dëgg. lu baax rek laa xam ci moom. lu baax rek nag laa xam ci moom. waaye nag. liggéey Serigne Touba bi moom. liggéey Serigne Touba bi nag. fii ma nekk. day yéefi jàmbur. day yéefi jàmbur. kon lu mu ci doon rek. kon lu mu ci doon rek. daa war di leer. daa war leer. ñuy xam nam demee. ñuy xam nam demee. ba ñu ko war a leer leeral ko. ko war a leeral leeral ko. waaye entreprise boo koy defal. waaye entreprise boo koy defal. suñu yoon néew ci. suñu yoon néew ci. ndax mosuñ ko lijjanti ci benn projet. ndax mosuñ ko lijjanti ci projet. ba xam kum doon. ba xam kum doon. waaye la ñuy liggéey moom. waaye la ñuy liggéey moom. ndegam ci dëkk bi la jëm. ndegam ci dëkk bi la jëm. ci sëriñ bee tax ñu ko fi def. te bu ñu leerut. nga xam ne loo ci laaj kenn tëniwu la ci. boo ci loo xam ne loo ci laaj kenn tëniwu la ci. loolu moom neexut a firi. loolu nag moom neexut a firi. ñu ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax. wasalaamaaleykum wa rahmatullah